senegal nag fi ñu toll nii moom li ñu naan bës daal moo moo fi xew li ñu naan bës waaye ci wàllu ci wàllu sëy moom ci cosaan li yenente bi nga xam ne moom la roy dafa wax ne buñ dee tànn soxna nañ ko tànn ci ñeent yi gën a siiw mooy ci jikko ak ci diine ak ci askan ak ci ak am nañ ci boole sa am-am waaye nag li ci gën mooy tànn ko ci jikko ak ci diine waaye rek léegi gis naa ne senegal moom ci am-am rek lañ jiital ak bës léegi dafa mel ne daal Euh, ni ma gisee nii ñuy doxee nii ñu bëree bari ci sama classe gi am na ñoo xam ne am soxna ba mu doon leen tum <laughs> ndax ndax léegi daal dafay mel ne dañoo jiital ay can te can gi nag li ci lislaam santaane woon mooy li taxoon boo dee xool Sëñ Tuubaa can gi ci ñatt téeméer la déparé woon dem ba ci junne ñatt téeméer waaye nag dem ba ci fi mu toll nii Sëñ Muntaxa yóbbu ko ci juróomi junni ak ñatt can gi da ngay barkeel sëy bi tënkuwul ci ne nag jigéen wëri su ko teral waaye nag dafa am lu ñu moom la ñuy maam mooy mooy mooy symbole bi nga xam ne moom lislaam wax dañuy wax ne sax jigéen gi bu ñu ko joxee can googu li baax mooy mu jënd ci loo xam ne nii lu mel ne bi yére lay doon bu sell boo xam ne sax yu amee lu ko jaaxle wala lu ko lu ko lu lu ko lu ko jaaxal ci ab sëyam wala ci njabootam wala nengam mu dem jàpp ba set julli ñaar sol yére boobu julli ñaar rakk ñaan ci suñu borom du delloo du ñaan googu loolu mooy cosaanu det am na ñoo xam ne dañ ko daan jënd ab sër di ko muuro léegi nag mënees na ko def yére di ko jaamu yàlla waaye nag bu ñu demee ba gis ne Sénégal li fi xew nii ci ay célébrité yi nga xam ne dañuy jël may nañ ko di millions may nañ ko nangam may nañ ko nangam sëy yooyu en général sëy bës rek benn du ci dem 6 mois wala 1 an amul waaw conséquences yi mën a jur mooy ci xale jigéen ñi ak ci xale yu góor yu bare bëri fi mu toll nii jàpp nañ ne kuñ ci mayut ay million rek daanaka sëyoo te fekk du can gi moo am moo am solo maanaam yor bu rafet bi moo am solo ndax da nga gis kuñ may 6 millions mu dem ñu torturé ko torturé xam ne yaakaar naa 6 bu fekkoon ne na ci moom it la muy daj ci sëy bi wala bokk six mois la ñu dox rek sëy ba am problème ñu dugg ci ay tribunal dem dikk dem dikk nangam yooyu yëpp conséquence la yoo xam ni xëy na sénégalais yi nag dëkk la boo xam ne dañ ne quatre pour cent musulman waaye pratique wuñ diine moom dañoo topp di rey rek ay tubaab di roy ay américain di roy leneen ba nga xam ne léegi daal li am solo rek mooy liñ bëgg rek mooy diw dana génn télé wala diw théâtre kat la wala nangam wala nangam lam def rek yow nit ku baax ki nga xam ne naka jekk danga nga amoon ay valeur am ay culture yu ñu la ci sa cosaan ak ci say maam nga bëgg bàyyi la nga nekkoon dem topp ñi nga xam ne da nga leen gis ci télé bi ci roy dàq ndax léegi dañoo dañoo indil télévision cinéma ba ci suñ biir néeg indil ñu ay série andil ñu lépp nga xam ne boo dee xool série yi euh, maanaam lexis bi ñu lay wan ñoom bi ñuy dund ci série bi ak boo leen gisee ñoom réalité xam ne du bokk léegi nag nit ki nga xam ne amul culture du xalaat day jàpp loolu ñoom li ñu dund noonu ci série bi noonu rek moom lañuy ñu dund kon na ci nit ñi bàyyi xel bu baax a baax xam waaw mooy mooy lim mooy jamono ji yàqu ji léegi nit ñi dafa mel ne léegi boo génnu télé siiwoo nekkoo star kenn du la topp kenn du la xam daanaka dundoo te loolu muy muy erreur bu muy erreur bu rëy rëy ba tax boo xoolee léegi benn benn jeune jéemut def benn qualification pour am métier boppam dafay bëgg rek nekk star yow da nga fexe dee jigéen nga da nga fexe ba xaw a xuy xuy tuuti def say sëfo def say say affaire daal dem ci ñu jël la ci benn série nga génn benn série ñaari série rek daal di daal di siiw su ko defee eh, ab footballeur bu jóge fële wala ab mbërum làmb wala nangam wala koo xam ne nii ab nee nañ ab sëriñu sëriñu ñaan la bu tariyax kat ñëw may la ay milliards ay millions nga nga siiw loolu moo tax ñu bëri dem bëgg a jëm ci loolu waaye loolu du lu wéy li am solo mooy nit ki bu ñu ko yaree ci ci ay culture yar ko ci ci askan wu baax ak cosaan lu baax dafay jéem a xeeñtu cosaatam boobu ba jéem a jéem a mën a demal boppam ci bañ ñu di wékk boppam ci kenn ndax nit ñi koo wékk su bopp rek bu ëllëgee mu mbas la ca bu la mbasee da daanu ci suuf kon Euh, Sénégalais yi nañ jéem a xool il faut ñu dellu ginnaaw tuut jël benn rétroviseur xoolaat seen bopp ndax sëy boo gis ñu def 6 millions 20 millions 10 millions may ay bëtu or ak ay oto ak ay danga balaa mat 6 mois nga dégg coow lu bëri ndax am na ay sëy yu jiitu woon sëy yi dégg ñu naan am na ci koo xam ne nii xëy na day santas borom kër ga nangam te yooyu ñooñu it ba ngeen takk booba gis nga bëri coow li bëri woon lool kon yooyu yëpp ci foofu rek lay mujj lu ci mën a am daal def ki ngir yàlla moo gën def ko ngir progrès wala leneen